mooy boo amee gan wala boo amee ku la lakkal muy dem da koy diril cin ngir mu nekk bu ñëwati moom Bougane Gueye Dany opération diril cin la taxawal ay akay comme bu nekk def na ko maa opération diril la defal démb kii nga xam ne moom mooy président Macky Sall ba noppi daal di andi tekki mhm. nga toog fi tekki lu mën a nekk la opération tekki moom Bougane Gueye Dany mooy wax de fii nga xam ne moo di tribune yéene kaay ñee na nag li ñu seet seetlu moo di boo seetee ba ci biir bi président Macky Sall waxee ba noppi téeméer yoo jël ci leader euh, politique yi fi nekk. daanaka moom wala as néew ñoom ñoo ca wax quatre-vingt-dix-huit pour cent dañu seemaanu. yooyu ñu ñu si bilan wu président Macky Sall bii. dañ see kàcceet seen bopp maanu si waxuñu si dara ci kaw xëj na wax nañ ko maire Binta Faye ci suuf <laughs> mais waxuñu si dara ci kaw moom bugaat nga dani rek nga dégg ma mu wax ca mm. ŋàññ sa wax sa la mu say wax moom moo ko def 98 pour cent des leaders n'ont pas voulu se prononcer sur le discours du président Macky Sall am na lu tax. ñoom ñii ñëpp nekk fii di xëccoo. am lu tax kenn wax est-ce que tal nañ ko est-ce que nekkuñu. ah bi jaaxle jaaxalu leen. très bien xëy nag dañoo am lu leen doy sëkk. waaw tamit de. par peur d'être recalé à l'étape des parrainages nee na lii rek moo tax nag. ndeysaan. dañuy ragal ne boo waxee. nga bokk si ñay rot si tàmme bi. Hmm. parce que jamono jii tàmme jaa <laughs> maire yi ni ñuy def di tame nii. suy bale suy su voilà mën a nekk suy bale boo suyee rek nga bale ñu ngi bale nag nee na nag boo gisee waxuñu du leen du dagal rek. Mm. bañ jàll parrainage yi waaye man faalew ma lool. moom dundu ma président bu Macky Sall bu ma nee. Mm. na ma éliminé ci parrainage yi ndax du yàlla il n'est ni jël ni demi jël. pourquoi muy xalaat président Macky Sall mën na ko éliminer. non dane bu fekkee ñooñu dañu xalaat yi bu ñu waxee ci euh, euh, discours président Macky Sall bi ñu éliminer leen ci parrainage yi mm. moom mi ngi xamal président Macky Sall mi ngi xamal ñooñu ne leen président Macky Sall du jën du demi jën du yàlla du yónnal s'il peut m'éliminer libre à lui mm-hmm. nul n'ignore que Gëm Sa Bopp a battu un travail de titan durant la campagne des parrainages parce que nag lii yéen ñëpp mooy ñoo xam ne gisu leen ci terrain bi matal nañu validé xëy na dañ ko def ci suuf. maire fii ñoo xam ne kin gisu leen ci terrain bi. parce que durant campagne ña ngi siy gis. Bougane ngay gis. Anta Babacar Ngom Anta Babacar si gis bariwul Malick Gakou ak kan. et Malick Gakou. Khalifa Sall. waaw. Khalifa Sall. ñooñu ngay gis ah si terrain bi ñooñu moom ràññee ay bun da leen doon dégg bu Abdoulaye Diop da nga leen doon dégg Aly Ngouille Ndiaye da nga leen dégg parfois benn benn. waaw Aminata Touré nga leen di dégg mais le reste yëpp dañoo maanu ci campagne parrainage utum signature mais ñenn ñi jàll nañu mi nii. bugaan nee na nag xipp leen seen i bët texoo te xam ne ñëpp xam ne li na fànn kenn du ko jeex. bu dee mbirum parrainage rek. Hmm. dama cee mbapp da cee liggéey nag. mbapatkat maa yi nga xamante ni ci langue politique yi. loolu loo xam ne ci tribune yéen hmm. démb ci émission bi nga xam ne moo di tribune présidentielle wax ne na ay Chaba. Hmm. contrôle du parrainage dañuy waxtaanee ba tey conseil constitutionnel. tey jii moom mooy troisième bi. gaa ña war a jàll. quatrième jour quatrième jour. gaa ngay jàll rek de. aywaay gaa ñaa nga ca contrôle ba. démb sur vingt dossiers ñaar rek ñoo jàll kenn ki suba kenn ki ci ngoon. ñaar. deux retenues. six sont admis au second maanaam am na lu ñu war a defaraat li nga xam naa ba. délibération délibération. <laughs> le moom dañu leen ajourné. sur ah. tonton Aziz Samb lu mu ànd. <laughs> vitale. tampico cadeau. aywa cadeau ñu dem toog maa leen ko may. ñu taxaw di ba bëgg a dee. Oscar de vacances noonu la. boo feccee ba dox jàll. ñu jox la cadeau ne la cadeau gunge la nga dem delluwaat sa tribune ba donc nag. am na ci siis yu nga xam ne ni ñoom second tour dañuy xaar ba tey ña nga ca pecc ma waaye ñi sa des ñëpp. cadeau dem leen toog xaar <laughs> Karim Meïssa Wade moo jàll moom ci suba gi Habib si ci ngoon gi ñoom nag kenn waxu leen cadeau ñoom bokk nañu en attendant di xaar suñu juróom-ñaari maañ maanaam sept sages yi mm. présidentielle février 2024 candidature abusive ou dilatoire euh, des peines doivent être prévues en ce sens wax nañ dëgg nag ñii nga xam ne ñoo retiré suñu fiche te bu wóor ne amuñu sax paasu Dakar Tëngéej. ambition de bëgg rek uti signature ba foo nga leen. Hmm, pour lan. mais yow amoo caution. <laughs> gis naa benn confrère Basir Niane bu RTS defe naa. Basir ndeysaan ñu <laughs> def ci benn benn poste. waa ji nga xam ne amul amul amul casier judiciaire. waaw hmm. ah casier judiciaire timbre bi 300 dong la. kese. et pourtant dem nga caisse de consignation déposé fa 30 millions. aywa <laughs> te moom déposé na de. 30 millions mais lañu ko lañu ko dàkkee amul casier judiciaire. Hmm. ndeysaan ki nee ma ñaanal ñu bañ a wàññi si tamit bi tey Mamadou ana Alpha Thiam aywa déposé 30 millions pour am 300 pour wut casier judiciaire. est-ce que du rang bi a kaay dikk ca ka nga xam ne moo doon dajale signature yi di Abdoulaye Diagne moom ci boppam dafa wër a wër a wër a wër dajale dajale dajale dajale ay ay signature ba dog ga ñàkk ok jara bootee sama sama maa ngi lébu yi jara bootee kay toog aw am naa jaaraam mm-hmm. waaw waaye nag dama toog xaar rek ñun parrainage bi gën a yomb la ñuy jël daañu jël élus yi rek moo gën a noppale. mais mais li mu def nii dafay firndeel fësal moom it toogaayam ci bu langue politique bi ci wetu Macky Sall c'est important. li mu jot am. day wane li mu jot am si nombre de parrainage day wane moom ñi ànd ak moom. loolu tamit force de frappe la si biir bi daal maanaam campagne la woon. waaw campagne la woon remobilisation. de l'animation remobilisation. campagne la rek. Euh, passage yu candidat yi conseil constitutionnel Bougane Gueye Dany nee na ab injustice daf caa rax ca biir moom Bougane Gueye Dany moom moo ko wax l' observateur nee na c' est ténor à la peine ñu ngi nii cadeau ñeneen ñi jalaal nañu cadeau ñeneen ñi ñoom fu mu nekk dañu leen da ngeen di xaar boo tëbee dal ci xar des na la beneen tëbin mhm. boo tëbee daal ci ab xal nii des na la beneen tëbin kon nag ñii des na leen aw tëbin mhm. Aly Ngouille Ndiaye mii wala Malick Gakou ah heureusement photo bi moom weer la. waaw ah, bi bu baax bi lañ andi. na ngi Idrissa Seck moom huit mille et quelque la ko laaj. il faut nga joyanti ko. bëri na de. ah, ah kay ngi nii yéen kaay bi nee na ay tenoor yu nga xam ne nii ñëpp jàppoon nañu ay kàngam politique lañu. Uh-huh. nammuñu dara si dalaay politique ndekete ñoo gën a namm lépp. ñu ngi nii matlew yi wàllum yoon dinaa ci ñëwaat Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang tey jii la combat final bi. cooki fin ban cooki la dinaa ci ñëwaat l'enquête yéen kaay dikk ci vérification parrainage yi moo di doublon ñii ñëpp doublon mooy moom laay wax démb sénégalais mooy danga may nax ma wan ne la maa la gën a mën a nax dublon mooy faalew ma la ñëw nga jox nga ma sa fiche ma la loo ma jox yaa xam keneen ñëw ma signal ko loolu mooy dama laa yeb donc ñii ñëpp ñi leen defal doublon dañu leen a yeb ñii ñëpp ñu ngi nii ay doublon moo leen fi dëj di xaar ba léegi dina mat wala déet li ci nam raw li gën Sud Quotidien ñëw na ci audience bi nga xam ne mooy première chambre pénale bu cour suprême euh, ci mbirum Prodac Sonko croise les droits ndax nag tey jii bu fekkee dañu ko confirmer hmm. moom bi ah moom Ousmane Sonko. mën na hmm. perdre ay droits civiques am n'est-ce pas. loolu la ñu bu fekkee dañu ko confirmer maanaam am na yeneen bi ci gën a dikk bu fekkee dañ ko confirmer maanaam dañu ko tegaat ay daan ah dana doy waar de laaj yeneen moo ko wax. affaire de diffamation contre Mame Mbaye Niang audience suprême pour Ousmane ko mi ngi candidature tamit lii da ciy compter dana bokk am déet li ci kanam raw li tey ji lañ say sëgg les rebelles de Benno au forceps ña ngay buuxante ba léegi ñoom waa euh, Benno Bokk Yaakaar ndax ñu jàll am déet ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ca biir te fippu wane seen bopp ah li ci kanam raw li gët lii coolo lu fi amoon de libération nee na gré à gré 71 milliards yi nga xam ne la ñu doon tudd sa ministère de la santé ñu ne kër gi ci benn fan amul appel d'offre moom daal ci benn fan la ñu traité dossier bi moom mu gagné soixante yi ba am ñu demoon yóbbu mbir yi ca cour suprême euh, cour suprême nag dafa valider l' approbation du marché ah marché bi nag da daraay euh, euh, jubal di daraay dëng dëng amu ca mm-hmm. daraay luubal amu sa bu mm-hmm. leer nañu la mm-hmm. mm. waaw dikk na ci ba pare ñu dikk ci également recours bu Ndiaga la contre la nomination des membres de la Sénat rejeté waaye pourvoi la ñu def. waaw moom gaaruwaale la opposition bi de. <laughs> moom day gaaruwaale nee na leen bu leen arrangé. ngeen ne kaa leen ñu xeexandoo. Mhm. arrangé wu leen ngeen bëgg cee génn ba mu set. waaw mhm. nee na lii du xeexu gor. le quotidien yéen kaay nee na plan B de Sonko Habib Sy le cheval de Troie il est parrainé par des députés patriotes. il promet de se passer bu fekkee na candidature Ousmane Sonko jàll na moom Habib Sy nee dafay dem toog du xëccoog Ousmane Sonko. ndax ñoom ñoo bokk seen ak Yewwi. kon daa gore. looloo sabab nag Walf Quotidien nii ça sent le roussi. Hmm. pour des ténors. ah parce que ñii ñëpp seen ak bokk leeragul. xamaguñu ndax dinañ bokk am déet. est-ce que yéexuñu. kan ténor yooyu noonu Walf titré. bopp yooyu mu fës seen position yi rek moo leen xaw a sonal. moo leen sonal waaw si rang bi quoi oui ça c'est vrai position bi la en fait c'est ça qui joue. fi ñu nekk moo sori. Mm, oui. fi ñu nekk moo sori. loolu ngeen gis. Mm-hmm. Ah, ba tey ba léegi ci euh, retraite anticipée et exil. adjudant mi ngi andi ay leeral nee na après 27 ans de loi de loi et service je quitte la gendarmerie par le biais donc d'une retraite anticipée. Cette décision amère que j'ai prise découle d'une injustice scandaleuse dont j'ai fait l'objet au sein de la gendarmerie. Mmh. Hmm. nee na injustice boobee. ki nga xam ne mooy général Moussa Fall ci boppam dafa ñëw delluwaat ca. xamoo ko de. moom adjudant Sarr nii. xamu leen ko kon. waaw moom it lan ko tooñ. ah nee na tooñ nañ ko de. na ko retraité anticipé à moom gàdd jël na retraite tam gàddaay na. waaw ah, kon kay luñ ah? moom it la nee na la dund. a pris sa décision kay. <laughs> problème jël nga sa décision yow maanu rek da leen toog. aywa. bés bi avec treize députés de Sonko ah kay député yu Sonko yi validé nañu candidature bu Ousmane bu euh, Habib Sy en tout cas parrainage am jàll na mu des suñu juróom-ñaari maam yi maanaam set sages yi ndax dana jàll am déet li ci kanam raw li gët yéenekaay bi daal dina ciy dikk 24 euh, heures daal dikk ci Karim Meïssa Wade confirme son cap pour 2024 mu ngoog moom Habib Sy en tout cas moom kii nga xam ne moom moo di Karim Meïssa Wade Euh, mi ngi de euh, euh, mi ngi dëgmal rek moom fukki si la woote moom it. Mm-hmm. février bi daanaka yàggatul dara ndax dana dikk am déet ña nga ca kii nga xam ne mooy annulation bu décret portant nomination membre du Sénat dañu ko débuté Cour suprême moom moo fa jaar Ndiaga Sylla nee na pourvoi en cassation kon nag bàyyiwul balaa ak ci loo woote. Bougane Gueye Dany si deux minutes pour lire l'essentiel. Mm-hmm. nee na veille de parrainage Bougane le jour d'avant parce que moom suba la war a jàll. caajuma ji moom suba la war a jàll ci tame bi. ndax dana jàll am déet li ci kanam raw li gët huit millions de mètres carrés bandagés ay révélation yu mu def ci banlieue bi lii dina intéressé Mamadou Fofana ñoom seen filao yi coow naa ci ba léegi de Thiès wax na ca Dakar en vue ak bët nanu ko tegee bët l'eau l'électricité le téléphone à nationalisé en tout cas lii bokk na ci pro euh, euh, euh, ci programme am moom njiital gëm sa bopp critique yéen kaay conseil constitutionnel vers le deuxième tour waaye nag ñi nga xam ne mooy suñu juróom-ñaari maam yi hmm. les sages prennent les devants et avertissent que la procédure de régularisation qui concerne plusieurs candidats encore dans le doute repose sur la notification du chef du greffe. Seule habilité à en informer le mandataire du candidat concerné kon nag du ko mu neex rek nga jóg gàddu damay dem. ne ah. c'est organisé greffe moo koy notifié nga doog mën a dem lijjanti la ngay lijjanti ñoom daal jël nañu seen i xam naa dañuy bañ ku leen joxoñ baaraam. ah seen matuwaay leneen Marème Marème Faye Sall tuddee nañu ko hôpital régional bu Fatick. waaye wu dootul fay la. aywa Odia. l'évidence ñëw na laata ñu dem ci Odia ci Bougane Gueye Dany propose la transformation positive de la vie des Sénégalais lambda moom jiital gëm sa bopp démb la yëkkati yooyu la kàddu Khalifa Sall promet une fois élu président de la de ne pas promesse yi dikk na moom Khalifa Sall